الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله ولقد حذرنا الله من الظلم غاية التهذير وأخبرنا الله بأن هلاك القرون المادية بسبب ظلمهم لأنفسهم لنحذر أعمالهم قال المولى جل وعلا في محكم التنزيل ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنون كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom nu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokk yi ci yàlla sunu borom subhanahu wa taala moonu nettali ci alquran tere ñu tooñ suñu xutba tey mooy qissatu rajulin zalimin qissatu rajulin zalimin histoire benn waay boo xam ne tooñkat la woon lu tax mu nekkoon tooñkat mooy dafa bokkoon ci nguur guy tooñ daa àndoon ak buur buy tooñ daa àndoon ak borom doole buy tooñ léeg-léeg doomu aadama yi bu ñu àndee tooñkat ñoom dañuy jàpp ne dañ ko war dañu war a nekk ñoom tamit ay tooñkat bu ñu bokkee ci nguur guy tooñ ñoom dañuy jàpp ne ñoom it dañoo war a tooñ comme buur ba na muy tooñee waa ji al imaamu suyuti mu ngi koy nettali ci téeram ba wu tudd al kabair benn waajoo la woon boo xam ne dafa àndoon ak ay tooñkat ba jàpp ne moom war naa nekk tooñkat muy tooñ ba nattu yàlla dal ko mu jaar ci mbedd yi yunaadi fi nahaar bëccëg bu nekk day jaar ci mbedd yi di yuuxu naan man raani fala yazlimanna ahada man raani fala yazlimanna ahada wax jooju la jël def ko woy di ko woy ay waay ku ma gis bul tooñati kenn képp ku ma gis bul tooñati kenn waa jooju loolu moo nekk ay woyam su xëyee suba ci mbedd yi lay jaar di yuuxu ak baatam ba naan man raani fala yazlimanna ahada woy ku ma gis bul tooñati kenn moom waa jooju ba ay yoonam baree ci mbedd yi takkarnaase ba gaa yi xàmme ko benn bis benn waay daal di koy téye na ko yow lan moo la dal lu la jot ba bés bu nekk rek nga jaar ci mbedd yi naan man raani fala yazlimanna ahada ku ma gis bul tooñati kenn luy sa mbir mu ne ko kuntu min awaani zalama dama àndoon ak ay tooñkat dama àndoon ak borom doole buy tooñ buur buy tooñ faraaytu yowman sayaadan qad istaada samaka kabira fa ajabat nii benn bis ma génn sama kër may dox ci mbedd yi rek ma seen benn nappkat bu yor jën bu rëy jën bu mag jën bi ni mu magee ak ni mu rafetee jën bi daal di ma yéem ma dox ba ci waa ji fa jitu ilayhi wa qultu la ma dox ba ci moom ne ko atini hadihi samak jox ma sa jën bi allahu akbar noonu la borom doole yi def noonu la tooñkat yi def noonu la nguur yu bon yi def dañuy tooñ fekk xamuñu ne yàlla subhanahu wa taala moo ëpp ñëpp doole te tooñu leen suñu borom ne inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu muharraman baynakum fala tazaalamu man yàlla maa leen ëpp doole te tooñu ma leen bal tooñ sax dama koo araamal ci sama bopp moo tax yéen jaam ñi ma def tooñ muy lu araam seen diggante bu leen tooñante moom waa ji nee na ma gis jën bi jën bi yéem ma ma ñëw ci waa ji ne ko jox ma sa jën bi waa ji ne ko déedéet munuma la ko jox li annani aaxizuha aaxizu bi samaniha ndax man borom njaboot la saa yu ma xëyee aw ma lenn lu dul sama mbaal mii laa yor ak sama gaal gi dugg ci géej gi lu ma yàlla wërsëgal ma jaay ko dem dundal sama njaboot kon su ma laa joxee sama jën bi lu may dunde loolu de doy na borom xel wax dëgg yàlla loolu war naa daw yaram ku am doole ku tiim ku amul doole di wax ak moom loolu war naa daw yaram ku am ku tiim ku ñàkk di wax ak moom loolu war naa daw yaram buur bu jiite ay baadoola waa ji lan la ko wax lan la tontu bi ko waa ji waxee ne li may jaay jën bi may dundal sama njaboot moom waa ji nee na mu jàpp borom jën ba daal di koy duma dóor ko waññaar loxoom nangu jën ba ci moom mu ne wa axastuha minhu qahran wa madaytu ma jël ko fal force romb ko yooyu bàyyi ko ak ay rongomañ ay rongoñam muy bërëngu mu ne fa baynama ana maashin biha ida addat ibhaami عدة قوية وآلمتني ألما شديدا حتى لم أنم من شدة الوجع ñana ba ma nangoo jën bi fokkarti ko ci moom wan ko ginnaaw di dem ndeke jën bi dese na dund tuuti jën bu bees tàq la mu ngi ko doog doog a génn ci géej gi ndeke jën bi dese na dund ndeke sama loxo rek rit tax na ci jën bi ba ni carax ci gémmiñu jën bi jën bi daal di matt sama baaraam bi nee na ma yëg métit ci yoon wi yëg métit ba ma yeggee guddi jot munumaa nelaw ndax métit mu na ma yeewu ci guddi gi ndax métit mu ne ba ma xëyee suba falamma asbaxtu ataytu tabib wa shakawtu ilayhi al alama ba ma xëyee suba dem naa ci docteur bi man nettali ko sama métit ni ma fanaanoo biig fa qaala aqta'uha mu ne ko foog ñu dagg baaraam bi su dul loolu tooke poson bi nekk ci jën bi tooke bi dana yàq tënk loxo bi kon baaraam bi foog ñu dagg ko mu ne ko dagg ko ñu dagg baaraam bi mu dellu yaakaar ne jeex na mu ne ngoon jot nee na mettit bi gën a avancé gën a yéeg ba munatuma toog démb damaa mënul woon nelaw tey damaa mënut a toog mu ne ma delluwaat ci docteur bi mu ne foog ñu dagg ténk bi foog ñu dagg ténk bi léegi jóge nañ ci baaraam ñëw nañ ci ténk mu ne ko daggal ñu dagg mu ne ma dem defoon ne jeex na mettit bi daal di yéeg allahu akbar ba fan ba ci conc bi mu ne ma dellooti mu ne ma foog ñu dagg conc bi ñu dagg mu ne métit bi yéeg ma dellooti mu ne foog ñu dagg loxo bi lépp ba ci kuuñ bi ci loxo bi ci kaw mbagg bi ne daggal ñu dagg waa ji ne ko yow luy sa mbir ngay dem di dellu di dem di dellu si ñuy dagg sa loxo bi te doo wér luy sa mbir ko dama àndoon ak ay tooñkat ñuy tooñ ne benn bis ma gis nappkat bu yor jënam man foqarti jën bi ci moom jaay ko doole jël jën bi nangu ko bi may ñibbi ci yoon bi jën bi matt ma poson boobu moo ma jàpp nii tooke bi ba ñuy dagg sama loxo bi di va-et-vient waa ji ne ko ca commencement ba bi ñu daggee baaraam bi rek boo dawoon wëri waaja baalu ko kon du egsi fii lenn nag laa lay yëgal soo wëriwul waaji ba mu baal la mooy ci dee nga jëm ndax day jóge ci sa mbagg mi tasaaroo ci sa yaram bi te ci dee nga jëm ndeke looloo waral waa ji muy jaar ci mbedd yi di wër naan man raani fala yazliman na ahada ku ma gis bul tooñati kenn waa ji nee na ma dajale samay bagage fas yéene dëkk ci mbedd yi pour wër waa ji ma dem fa ma ko fekkoon nangu jën bi gisuma ko ma wër ko ci marché yi gisuma ko ba benn bis ma seen waa ji ma daw langaamu ci ay tànkam ma ñaan ko na ma jéggal waa ji ne ma yaay kan man ant mu ne ko wër naa la ba sann mu ne ko yaay kan mu ne ko maay ki nangu woon jën ba ca yow maa ngi lay yëgal ne ba ma nangoo jën bi lii moo ma ci dal mu ne ko lii nu mu nekkee mu ne ko keroog ba ma jëlee jën bi topp ci yoon bay ñibbi jën bi ma mat jëlewu ma ci lu dul ñu dagg sama baaraam ma defa ne falayam ñu dagg ténk bi ma defa ne falayam ñu dagg conc bi ma defa ne falayam ñu dagg mbagg mi tey léegi nag nee nañ ma foog ma baalu la ndeysaan waa ji daal di jooy daan ne ko wallahi baal naa la xaw ma woon ne lii moo lay dal waaye baal naa la baal naa la mu ne ko waaw saawaay yow xanaa ba ma jëlee jën bi ci yow danga maa ñaan yàlla danga maa booleeg yàlla mu ne ko waaw waaw ne ba nga jëlee sama jën bi dem foofu ma toog laa tàllal yàlla samay loxo daan ne allahumma haada taqawwa bi quwwatihi ala daafi wa axaza minni ma razaqtani zulman fa arini fihi qudratuk yow yàlla waa ji de doole la ma jaay ak kattan ndax sama néew doole ba mu fekk loo ma wërsëgal mu foqati ko yow yàlla maa ngi lay ñaan nga won ma sa kàttan ci waa ji mbokk yi gis ngeen ndeke ndeke nun la rek nun la lu nu dal rek nun la nun noo bàyyi ñaan ñoo bàyyi ñaan noo bàyyi sellal noo bàyyi woor lundi ak jeudi yi ñoo bàyyi woor ayaamul biid yi ñoo bàyyi naafila guddi yi ñoo bàyyi jege sunu boroom ba ñuy tooñ diine ji yàpp nu suñ doon sellal ni waa ji sellalee kon saa yu nu yaanee rek yàlla nangu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ittaqi daawata almazlum fa laysa baynahu wa bayna allahi hijab mooy tandiku leen ñaanu ku ñu tooñ digganteem ak yàlla amul kiiraay kon tooñ baaxul waroo am sa doole di tooñ waroo yor sa alal di tooñ waroo am sa nguur di tooñ ak koo mën a mel waroo fekk nu ñu dee la nga leen di tooñ waa ji nee na ba ma waa ji tooñee yëkkati sama jën foqarti ko maa ne allahumma haada taqawwa bi quwwati bi quwwatihi alayya daafi wa axaza minni ma razaqtani zulman fa arini fihi qudratuk yow yàlla waa ji day kattan de la ma jaay ak doole ndax man dama néew doole ba mu fekk loo ma wërsëgal mu foqarti ko ci man ndax tooñ ndax moo ma ëpp doole waaye yow yàlla moo ma ëpp doole mais yow yaa ko ëpp doole kon yàlla yàlla nag ma won sa kàttan ci kaw waa jooju fan la mujje jën ba mu sàcc jën ba mu nangu la ko yàlla booleel mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala moo nu tere tooñ mooy tandikuloo ñu ko mu xamal ñu ne xeet yi ñu jiitu woon démb li leen alak mooy tooñ borom bi ne walaqad ahlakna alquruna min qablikum se xeet yi leen fi jiitu woon démb man yàlla maa leen alak waaye lu tax maa alak leen mu ne lamma zalamu bañ ma tooñee ba ñu tooñee rek laa leen alak wa jaahum rusuluhum bil bayinat seeni yonent ñoo leen indiloon ay lay yu leer yu ne weng yu set wecc jóge ci borom bi ñu lànk wa ma kaanu luy uminuun ñu lànk ba ñu gëm loolu borom bi subhanahu wa taala nee na ma alag leen noonu ma alage woon ñooñu yéen tamit kazalika najzi alqawma almujrimin noonu man yàlla laay faye ay nit yoo xam ne ay kàccoor lañu mu ne summa jaalnaakum xalaifa mi- fi l ard min baadihim linanzura kayfa taamaluun ba ma alagee ñooñu jële leen fi yéen ñii laa leen wàcce wuutal leen ngeen remplacer ñooñu ma xool man yàlla ndax yéen tamit nan ngeen di def ndax da ngeen di tooñ wala da ngeen di gëm aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله يقول جل وعلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا borom bi nee na dëkk yële ngeen di seen wala ngeen di dégg seeni histoire ci alquran ngeen koy jàng bis bu nekk borom bi nee na dëkk yooyu maa leen alak waaye kañ laa leen alak ak lu tax ma alak leen mu ne lamma zalamu bañ ma tooñee rek laa leen alak wa qaala taala fa ka ayin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalima ñaata yoon ngeen jàng ñaata yoon ngeen dégg ay xeet ay réew ay buur yu mbëru woon ba bew ana firawna ana hamaan ana ñeneen ñi mel ni ñoom ba ñu nguuroo ba yaakaar ne seen nguur mënal na leen dara ñuy tooñ borom bi nee na alag naa leen bu yàgg waaw seen nguur laa yëngal seeni dëkk laa yëngal fa hiya xaawiyatun ala urushiha borom bi nee na nga dem fa fekk fa ay teen yu kenn dootul naan ay château yu kenn dootul dëkk afalam yasiru fi l ard fa takunu lahum qulubun yaqilunaha aw adanun yasmauna biha fa innaha la taama al absar walakin taama al qulub allati fi sudur borom bi nee na wallahi su ngeen xel woon ngeen dox ci kaw suuf si ngeen gëstu ngeen jàng histoire ubbi téere yi ubbi démb ñi fi nekkoon daan fëgg seeni dënn ndax doole dañu yor ak arme bu ñu yor borom bi nee na bu ngeen doxoon ci kaw suuf ngeen xalaat ci seeni xol seen xel yi ngeen xalaat ubbi seeni nopp déglu bu baax a baax kon di ngeen dégg ñooñu la leen doloon waaye borom bi nee na li fi wóor li fi nekk mooy dëgg dëgg dëgg dëgg laa taamal absar bët du silmaxade walakin taama alqulubu allati fi sudur ñun dañuy jàpp ne ku ñu romb gisul ñu ne kii silmaxa la déedéet borom bi kan la wax mooy silmaxa mooy ki xol bi fattu ki xol bi kaste ki xol bi lëndëm ba mënatul xam yàlla borom bi nee na borom xol yooyu ñoom ñooy ay silmaxa waaye silmaxa du du ko ay bëtam ñàkk gis silmaxa mooy ki dégg démb ñi caaxaankat yi bañoon jaamu yàlla yàlla alak leen ñi doon jéem a tooñ yàlla yàlla labal leen ñi yàlla alak leen ñi yàlla yëkkati leen ba ci kaw góor ci suuf ñu dégg loolu lépp ba pare ñun terewuñu lu dul ñoo ngi ci bàkkaar yooyu ba léegi xool leen fan yi fecce yu ñu génne fecc fecc bu tudd dëmm dëmm ak fecc bu tudd sëriñ na sëriñe na dëmme te léegi moom moo xew allahu akbar chaque jour dañuy gën a dem di génne lu bon chaque jour ñu gën a dem di génne lu bon te kenn du wax loolooy wax loolooy mbirum waa Sénégal borom bi subhaanahu wa taala nee na fa kullan ñooñu ngeen di dégg yépp xeet yooyu axasna bi zambi ñoom ñépp seeni bakkaar moo tax ma jàpp leen seeni tooñ guñ ma tooñ moo tax man yàlla bi ma leen nee zëcc kenn ci ñoom rëccut inna batsha rabbika la shadid mu ne man arsalna fa minhum man arsalna alayhi xaasiba am na ñoo xam ne malaaka laa leen yónnee rek mu yuuxu seen kaw ñoom ñëpp ñu dee fa minhum ñenn ñi dënu fa minhum man axadna sayxata ñenn ñi dënu ñenn ñi xaacu asamaan moo dënu seen kaw ñenn ñi ñu dee ñenn ñi malaaka la yàlla yónni mu xaacu leen ñu dee mu ne wa minhum man axazna wa minhum man xachafna bihi l ard am ñoo xam ne suuf si rek laa yónni ci ñoom suuf si tremble ci ñoom rek ñoom ñëpp ñu dee allahu akbar wa minhum man agraqna am na ci ñooñu ngeen di dégg ñoo xam ne dama leen a labal mu ne wa ma kaana allahu li yazlimahum walakin kaanu anfusahum yazlimuun mbokk yi yàlla nee na ñooñu tooñu ma leen de ñooñu ñoo tooñ seen bopp tooñ nag xam ngeen yonente bi alayhi salaatu wasalaam li mu ci wax yonente bi nee na tooñ ñetti façon la tooñ sa boroom tooñ sa moroom tooñ sa bopp tooñ sa boroom mooy li la yàlla wax nga lànk bañ ko def loolu yàlla rek moo la koy baal tooñ sa moroom mooy nga tooñ sa moroomum jaam nga def ci àqam loo xam ne waroo ko cee def moom dong moo lay baal bi nga tooñ sa bopp nag yàgg sa bopp la ñett yépp la ñu tere doomu aadama bi mu def ko amul benn buñ la ci sant dañ laa tere tooñ sa boroom tere laa tooñ sa moroom tere laa tooñ sa bopp musidɓe fulɓe caggal yettude allah e julde nelaaɗo men mouhammadun sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hutba men hannde wonno ko yewtande bandiraɓe e gorko oɗo mo ganduɗa o toñanno woni qissatu rajulin zalimin tindande bandiraɓe oɗo gorko toñannoɗo holko tagi omo toñanno saabu omo wonduno e laamu laamu nguna tooña o sikki kankone ko laamɗo omo foti toñde omo wonduno e neɗɗo no jogii doole no jogii sembe hattan on no tooña kankone o sikkine kankone ko hon o foti jeyaade o- omo tooñano ɓen toñirta ni ñalawma gooto o yii neɗɗo gooto ina yaano to maayo to haa dañi toon liingu mum ina yalta ina hoota galle mum o heɓti liingu ngu e on nde o yehi omo woni e laawol omo hoota galle makko liingu ngu ŋati mo e junngo o wondi e museyki o yehi galle o runki ɗanaade o yehi e docteur docteur o wiimo junngo ngo feɗel ndu il faut taƴe o wi taƴ docteur o taƴi feɗel ndu o rutti galle makko feɗel ndu ndu ɓeydi musgol o wiya nawre nde il faut taƴe taƴa o rutti ko noon waajo o ina yaha ina ara junngo no taƴe haa junngo ngo taƴa fof holɗo wattindi omo rewe laabi ɗi beddaaji ɗi omo wulla omo luuka omo wiya man ra'ani fala yaslimanna ahada kala mo yii kam hoto tooñati neɗɗo kala mo yii kam no mbaami ni hoto tooñat neɗɗo o namda aan holko tagi aɗa haala ɗum o yewtani ɓeen namdinoɗo ɓe mo o wiya mi yiino neɗɗo ina jogii liingu mum keɓtumi mbiɗa ho- mbiɗa nawa liingu ngu liingu ngu ŋatimi ɗum rewimi haa junngam ngo fof taƴa ɓe wimo il faut ƴeewoya on wiyaɗa wiyama yo yaafe so wona ɗum junngo ngo fof haadi taƴama ko ɓanndu ndu rewata heen ama yeyi o rewe laabi ɗi boli ɗi omo yiilo waaji o haa o yiyoy ɗum nde o yii waaji o o turi e koyɗe waaji o omo duwo yo on yaafamo on wimo moni aan o haalnimo o wimo min heɓtuno lingu ma ngu o haalnimo alhaali o no yaari ni waaji o wimo mi yaafimama kono o wimo aan mbele nde ƴettumi lungu lingu ngu njaami nde ka duwaniɗo kam e allah o wi eyi kay nde ƴettuɗa lingum ngu fokkiɗɗa torimi allahu subhanahu wa taala wimi allah o ɗo dey o holli kam sembe makko e doole makko e dowam sabu mi ala doole a o hepti an allah ko dokkunoɗa kam e arsigue miɗa ñaaguima an allahu subhanahu wa taala ya hollumo doole ma wallahi holko allah wadde e waajo ha jungo ngo taƴa liingu doole allah heƴa subhanahu wa taala heƴani e ɓi adama firawna holko allah rendinno e makko ndiyam namrud holko allah wadduno e makko ɓongu allah subhanahu wa taala o heƴani e neɗɗo doole makko o haƴani e ɓi adama ndeke ndentoɗen toñde ganden toñde diine koko sali ɗum alquran koko sali ɗum sunna nelaɗo koko sali ijma al umma koɓe sali ɓe toñgol ndentoɗen hoto wiyan rek enen jogui hattan enen jogui semme enen jogui doole enen jogui laamu eɗen tooño sa toñi neɗɗo o sujjini allah subhanahu wa taala musiba ma musiba yanema aduna ma boni lakara ma boni kono yo allah dandu en e toñgol allahuma arina alhaqa haqan warzuqna tibaa wa arina albatila batilan warzuqna tinaba allahuma ya musabitu lqulub thabbit qulubana ala taatik allahuma fanas'aluka an taruddana ila dinika maraddan jamila allahuma ahsin aqibatana fi lumuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabi alakhira ibad allah يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله